mais yàlla saaxle de laa bëgg a dégg. jërëjëf euh, amiin waaye xam naa yow xam naa yàlla saaxle. 2029 2029 lu ne ah. ndax lu ne xëj na ci. ku ne mun naa doon président. Abdoulaye li nga sol rafet na. Euh, macha allah yow yow kenn demul nga. waaw ayca <laughs> comme daba <laughs> alors yegg si ci li gën a fës ci bopp yéen kaay ñu xëyandoo tey ji mu mel ni nag Walfadjri euh, quotidien maa ngay seen ci mu njëkk nag muy wax ci président Diomaye. ma ngoog ndaje mu yaatu la woote ëllëg ci talaata ji assise de la justice waxtaane wàllub yoon yeesalaat ak euh, gàgganti gañu ne bëgg nañ ko ci amal googule jotaay ca jam ñaajo yéene cabinet ci jamono ji Bassirou Diomaye Faye njiitu réew mi ma ngay nas projet ma ngay muul projet goo xamante ne ëllëg daanaka mun na koo jëmmal ci wàllub yoon wàllub justice bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien ci xëtam bu njëkk ñu ñëw ci Le Quotidien yéene cabinet di Le Quotidien mu ngi ñuy dektal ne daanaka ci jamono ji mu ngi xool euh, nañ lay do nañ lay a euh, anam la ñuy tabaxaate justice su Sénégal yéen kaa bi moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk mu ngi ñu dégtal Bassirou Diomaye Faye président coow li ne cobboy nag ci ñi war a bokk ci googule jotaay yéen kaa bi bokk na ci ay euh, personnalité ay kàngam yoo xamante ne bokkoon nañu ci jotaay gañ doon waxtaane wàllu justice ci atum 2018 ñooñee euh, dañ leen fa euh, sénat ak ñeneen ñoo xamante ne daanaka seen teewaay jaru ko woon te ñu fas yéene leen ca boole ci googule ndaje bu waxtaanee yoon. turbine yéen a kaay lan la fasal ci googu lépp euh, ndajépp euh, justice bokk na ci euh, caaxaan sax moom la ko yéene kaabidi turbine jàppe ndax atum dëpp atum 2018 amoon na fa ndaje gi ni mel euh, te lépp la ñu taxañ sànni ca mbalit ma jëfewuñ ko yéen kaa bi mu ngi ñuy dégtal yi tamit li nga xamante ne mooy kaddu yu tukkee euh, ci kenn ci koo xamante ne xam-xamam màcc na jëm ci wàllu justice euh, Mbaye Diouf jàpp ne ci jamono ji yoon gu indépendant gu tëddee njaaxanaay moom la ñuy xaar ci yile assise buñ ca jógee nag yoon mun a moom boppam yéen kaa bi jox kàddu gi maître Abdoulaye Tine jàpp ne war nañu mun a fexe nag ba jëru ngi ñu dénk wàllub ak njiitu réew mi daanaka seppi seen loxo ci conseil supérieur de la magistrature mu ngi ci yéene kaay bi di euh, turbine ñu ñëw ci info yéene kaay l'info ne coow la tàmbale na te ndaje ma doragul jëm ci réforme ya ñuy séntu ci wàllu justice euh, ca ña nga xam ñooy participants ya ña ca war a bokk Aliou Ndao euh, xam le ne itamit dafa jaadowul dafa jekkul ñu invité woolu Benno Bokk Yaakaar ci googu lépp dialogue ak itamit ñi nga xamante ne ñooy waa coalition Diomaye président ak ñeneen ak ñeneen ñu beddi leen ca loole nag la gis mbir eh, doon lu jaaxal lool Aliou Ndaw Moustapha jaxate xam le ne mbir yi eh, du mujjee fenn du jur ngeneel ci réew mi ndax waxtaane justice ci jamono ji nguur gi mun na cee faf eh, laxasu président Bassirou Diomaye fay jàpp ne nañ ko waxtaane ngir xool ban yoon la ñuy jël ëllëg ngir Sénégal mun a tegu ci wàllub yoon ba kenn dootul xarab yoon na muy doxee. yéenekaay bi di bés bi la jour. lu aju ci format assise yooyu le bokk na ci procédure bac nañ koy doxale jafe-jafe nag am na ci carton d'invitation ya am na tenue yu Pastef ak Clédor Sène ba ñu ne jën leen caa wóolu am ñu gis ne jaadutoon bokk na ci waa APR ndax amadu Ba moo leen di teewal wala keneen yéen kaa bi kat na ci bokk na ci jor gi ñu denk wàllub yoon leeral ne liste googee jot a siiw te mu jur coow daanaka base la woon dañ cee sukkandiku woon ngir mun cee liggéey waaye nag doonul list bu wér professeur Babacar Gueye moom la ñu désigné mu doon facilitateur euh, maanaam ki yombal liggéey ba kay tënk googu lépp liggéey ca jam ñaajo 24 heures moom itam 24 heures di fi doon ci ay njiitu réew lu ko dalee ci Senghor Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ba ci njiitu réew ma woon Macky Sall yéen a cabinet eh, ku euh, taxaw bees wala boog ku falu bees fexe ba xool naka ngay eh, sayto yoon woote assise ak yeneen ak yeneen mel na ni nag justice ci jamono ji daanaka ngannaay la eh, ci woy politique yi ndax coupe sur mesure goo xamante ne daanaka moom lañ cee amal saay bu ñu faloo yéen a cabinet 24 heures moo ñu ko yëggee mu ngi ñuy jégtali tamit ba jaxate ak Tidiane Ndaw ñoom ñaar daañu jàkkaarlook yoon daañ leen àtte gannaaw kàddu ya ñu jot a yëkkati jëmale ko ci premier ministre Ousmane Sonko. ñi ñëw ci le mandat. le mandat euh, sagara ngi xeeñ ci diggante amadu Ba ak euh, njiit réew ma woon euh, di Macky Sall APR kàddu ga doonatul benn ci ñoom ñaar ñooñu le bokk na ci amadu Ba ndax mun naa demal boppam am déet wala day wéy di langaamu ci wetu njiit réew mi Macky Sall rawatina wéy di ngooy ci APR mu ngi ci yéen a kii di le mandat. critique yéen ñu euh, jàpp ne ci jamono ji mooy chef de l'opposition ndax dina ko jëfeem déet euh, ci jamono ji ban tànk la fas jiital ci géeg politique bi mu ngi ci yéene kaabi di euh, critique réew mi quotidien réew mi dalal premier ministre Ousmane Sonko jëm ci autosuffisance alimentaire fexe ba béy dundee gi mun a law fépp ci réew mi bokk na ci li ko soxal mu ngi ko xamle ci ndaje Fiara fale ca CICES na nguur gi dina ci béy waaram ba fexe ba naataange am ci wàllu mbéy mi dañ ci def jéego yor-yor yéen kaay. jéego yu mag am na ci wàllu politiku Sénégal lu ko dalee ci atum 1968 euh, mai ba mars 2024 yéen yi nga xamante ne moom la Sénégal def ci wàllu politique lu ko dalee ci at yooyu le ba ni tey euh, kii di euh, bi di Bassirou Diomaye Faye ak premier ministre am Ousmane Sonko ne ci bopp réew mi. Le Soleil yéen kaay. njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ma nga ca Guinée waxtaanee nag nees mën a def ba gën a ñoŋalaat diggante bi kii di général Mamadi. di euh, Dumbuya jot na ko fa dalal waxtaane nañu nees mun a def ba gën a suqali continent bu Afrique rawatina diggante ñaari réew yi Guinée Conakry ak euh, Sénégal. laas moom kan la fasal ci xatamu njëkk. Euh, mu ngi ñuy dégtal gi ñu dénk wàllu napp mi bi mu ne yëgul tinul ci jafe-jafe tënk ñeenti bateau yu établissement Baye Niass mu ngi ci yéen kaa bi nga xamante ne mooy laas ci xatam bu njëkk. ñu ñëw ci Sud Quotidien. Sud Quotidien Mouhamadou bi tey mu ngi ñuy dégtal maanaam jéego yu bees ya ne bëgg nañ ko amal. ci lu soxal examen 2023 2024 euh, bokk na ci nguur gi bëgg naa sowe njàng mi mu ngi ci yéen a di euh, Sud Quotidien. ñu ñëw ci l'évidence. lu aju ci wàllub ciment gi ña koy jëlee ci Sénégal di ko yóbbu ca Gambie wala bokk di ko jëlee Gambie di ko indi fii ci Sénégal euh, ñu ngi dundu jafe-jafe ci taxi ya ñu ne moom la ñu teg ci seen ndodd loole nag la ñu gis ne war nañ ko mun a xoolaat ndax yëf ya diis na lool ci seen ndodd. stade yéen kaay mondial 2026 euh, lu jëm ci regroupement gaynde Sadio Mané Kalidou Koulibaly ñu ngi leen di xaar ëllëg ci talaata ji ci jamono joo xamante ne euh, Teungueth FC jël na championnat bi ligue des euh, champions bokk na ci tamit jot naa daan génération foot benn bal ci dara yéen cabinet Teungueth moom fësaat na ci footballu Sénégal mu ngi ci yéen kabi di suñu lamb ci stade suñu mu ngi ñuy dektal jeu technique mi daan brise de mer sox ak membre lamin ñu war a bore eh, ñaar fukki fan ak eh, benn ci weeru sulet eh, combat geneen Thiatou Kairé ak bébé Jackson ci weeru août lañ leen di séentu yéen a kaabi di suñu lamb moo ñu dégtal lamb jekk fa mu toll ak combat Abdoulaye Bopp mu mel ni nag 24 euh, heures laaj bi mu samp doy na waar le droit mhm. est-il une arme ndax euh, yoon nga naay la ci réew mi def nag nataalu juróomi njiit njiit yi nga xam ne jiite nañ senegal mhm. euh, ndax boo xoolee képp ku toog rek ñëw nga ci yëf yi jagalaat ko defar ko ba mu baax muy yére nga sol toog su ko defee yëre bi mun laa aar mangoog loolu tax loolu tax mu samp ñu duppee ko coupe sur mesure maanaam ku falu rek bëgg nga xool naka ngay aake ci yoon ba mu caa def lu la neex xëy na mu doon ngànnaay goo xamante ne ku la bëgg a fitnaal ku la bëgg xañ yenn yi nga fexe bay jëflanteek moom ci wàllub yoon ba tax na 24 heures fa mu taxaw tey lu mat a taxaw la mhm. ndax ku falu euh, jël yoon am noo koy tabaxaate am noo koy ñoŋalaate ngir mun cee doxe na ngir mun a aar sa bopp ñu war a xam nag kañ la yoon di jag rek ci mim réew di Sénégal eh, kañ la ñuy def daal ba eh, président bu fallu lam fay fekk mu fekk mu jàgg ba dootul doon loo xamante ne làq doom door doom dootul doon lu ñuy jëfandikoo ngir mun koo xeexee ay doom yaadama xeexee ko yu politique waaye na doon yoon goo xamante ne ñëpp dañ ci gis seen bopp yoon gu yoonal doon lu yitteel askanu Sénégal. laaj bi laaju tey la question auditeurs yi moom laaj la. laaj xam naa libre la mais mun nañ ko <laughs> exploiter dans la semaine. ndax lii am na solo. ñeel na la oh, oh, oh.